mbir mi euh, depuis jeudi avant jeudi sax laay wax am na kàddu yi ngay yëkkati woon euh, jot nañ ko et puis ñëpp dégg nañ ko euh, tey lan mooy sa réaction bu ciy tegu. dëgg la jërëjëf Antoine man damay wax toujours que ne bëgguma nekk allo. oui ñu ngi lay dégg. yéen bu baax bu baax. Youssou. waaw ñu ngi lay dégg bu baax. waaw ma ni donc man bëgguma nekk ma magum xamoon naa ko. Mhm. waaw magum waxoon naa ko laay. dëgg la dama ne. Mhm. réew mi fi mu toll. war nañu am lecture jàngat. Mhm. bu président lay Wade war a am ci li xew bërki Dembo Ndiaye. jàngat bi sama xalaat bu gàtt moom mooy président lay Wade il faut mu éviter def pression ci ñi nga xam ni que ñoom ñooy juge. li nga xam ne que ñoom ñoo war a valider wala bañ a valider candidature loolu dina indi encore fitna te ñu ngi jëm ci élection am lay Wade képp ku koy xelal tey daf ko war a wax ne ko Wade def nga li nga mën toog nga am nga aura international def nga li nga war a def avancé nga def nga li nga war def def nga ay erreur waaye def nga lu baax lii gën a dalal réew mi tey jii moom mooy mu renoncer à sa candidature loolu moom moo am solo te réew moo xamee ni que amuloo droit wane sondage amuloo droit xam lan la peuple bi di xam wala la peuple bi di wax sama ne loo boobu réew toujours dafay indi ay problème am na les renseignements généraux xam ne la majorité des sénégalais mm. dañu wax ne que troisième mandat bi dañu bëgg mu bàyyi ko mu am benn sortie honorable sortie boo xamee ni que bu xëy na bu tolluwul ni bu Abdou ju sax wala mu ëpp ko mhm. loolu mooy wax ji tey leneen du fi wax képp ku koy euh, xelal leneen mhm. muy waa partem seen intérêt personnel rek lañ ciy dugal mhm. président Ablaye Wade waratul soxla dara matal na lépp yàlla suturaal na ko donc nag réew mi wane nañu seen bopp te Sénégal pare nañu maa ngi lii man bi ma nekk ci tournée et tout nelawuma guddi nelawuma bëccëg maa ngi suivre événement yi. Mhm. te loolu mooy dëgg bi. waaw loolu laa wax nañ ko ñaan. mu bàyyi troisième mandat bi pression bi wàcc nit ñi mën a liggéey. Mhm. Sénégal jëm kanam. Youssou yaa ngi bitim réew di nekk ci tournée euh, naka la bitim réew gisee mbir mi naka lañuy ñuy euh, appréhender li xew Sénégal. li xew Sénégal lenn la. bërki demoo jaay congrès bi bi mu décidé ne dafay jël ci fii ci Amérique ne dafay jël ambassadeur bu bees indi ko ambassadeur bi moo dord bi ñu ko jox mooy Sénégal pays démocratique mais démocratie bi ba nga fay wàcc loolu mooy nar nekk mission diaspora bi wàllu bopp lépp li nga xam ne xew na fa bërki démb la majorité dañu d'accord ci ne nit ñi dañu war a bañ yenn yoo xam ne dañ leen koy jéem a imposer tout président Wade dafa am ñu ko wër ñoo xame ni que te duñu doyal te réew kenn moomu ko donc la diaspora et la communauté internationale ñu ngi yàq turu Ablaye Wade te amoon na ko waru ko yàq dara jaralu ko waru ko ko jaral mhm. Très bien. Euh, en français, avant de vous libérer, Youssou vous êtes en tournée à l'extérieur. Vous aviez